daa daan dem Gris 2 léegi nag amateur yaa ngi nii toog léegi Reug Reug kan ngeen koy jox Reug Reug moo kan la. Reug Reug moom combat bu rëy la am. kan ngeen bëgg a boole. moom ak Ama Baldé. Ama Baldé baax na Sa Thiès baax na. non Reug Reug Sa Thiès mooy combat bi loolu ma rek Reug Reug Sa Thiès combat bi. Reug Reug deux ans deux ans Sa Thiès mooy combat bi. Sa Thiès mooy combat bi. deux ans Sa Thiès mu ngi koy daw. Sa Thiès mu ngi koy daw deux ans mooy combat bi. mooy combat bi waaw Sa mooy combat Reug Reug Sa Thiès Reug Reug Sa Thiès mooy combat Sa Thiès mooy combat bi Reug Reug Sa Thiès mu ngi koy daw Reug mooy làmbam waaw naa ci loolu d'accord naa moom Sa Thiès Yékini Junior mooy làmbam Forza Reug Reug Forza. mooy combat warul génn Fass dafa warul dugaat Fass. non Reug Reug Forza mooy combat. moog Forza baax na Reug Reug moog euh, Sa Thiès moog euh, Yékini Junior. loolu lépp mais moom instant yii day xaar quoi. teel na Reug Reug. moog Yékini Junior combat la. ak Garga Mbossé. ak Garga la. Malick Niang ñooñu daal combat ak Papa Thiès Papa Sa yooyu yëpp combat la waaw bu demee 200 na laa lekk Ama Baldé yéen. loolu dañ ko jox Sa Thiès combat la waaw combat bu neex la. ñax njëriñu. Babacar bu paas. ñax xaaral caaroy. waaw Babacar maa lay ci loo waaw maa ngi si jàmm baax. Reug Reug koo koy jox. waaw moom yëg na kaw bu mu toll nii nañ ko jox naataango muy rek bokk na lu amateur yi bëgg waaw. yow koy jël. man sama mbooloo man fii bëri na ñu daan ak ñu niil doo wax du ma tudd benn tur ñu daan. da ngaa war a tudd tur nag yow. Babacar 18 combats laa bëree si espoir yi laa bokk dama gars yi bàyyi xel. yaa ngi woon ca neex na. lépp làmb la. yaa këral. Ama Balde loolu la ñuy wax de. waaw. ok. moog Ama Balde làmb la. la rëg rëg forzaar kii. Forza. ah Forza Forza Reug Reug lamba la. buur bi waaw yàlla may Reug Reug ndam lu leer nañ amateur yi dégg ngeen li ñu wax léegi nag technicien ngi nii yàgg ci lamba xam xale yi suñu tonto alaaji nga ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. maa yaa ngi am jàmm. sant yàlla. démb yaa ngi woon arène nationale balaa may ñëw ci adversaire bi Reug Reug Gris lu ko xañ combat bi ak Reug Reug lu ko faciliter combat bi jël boobu. Euh, xam nga combat boobu ñaari style yu bokkul la. kee dafa kee luur la te kii du du luur woyoful booy xool physiquement démb gris gris 2 li mu liggéey des na li mu liggéey démb mënul daan Reug Reug ni ma ko gisee ak corpulence bi li mu liggéey mënul daan Reug Reug xaw ma nu mu doon préparé combat bi mais ba euh, entraîné wul daan Reug Reug parce que deuxième songo bi bokkatul ci songo bu njëkk bi ci la waroon am li muy am. après nag jiital pied droit euh, pied gauche am boobu pied droit bi la waroon jiital parce que bu fekkee ne da nga jiital pied gauche bi bëgg ko crochet droite moom it ñu jiital la ko tànkam boobu mais saa yow départ mu ñëw jël la crochet crochet court rek la waroon bëre ak moom crochet court la waroon bëre ak moom te boo xoolee congo bu ñëkk bi euh, da ko doon testé da doon xool doole ji fu mu ne. moo tax biñ leen attee yëg na ne kii moom tàmbaleegul te kii commencé na sonn booy xool ci deuxième tompolo bi gis nga mbër saa yu jàppanteeg mbër nga gis gémmiñ gi ci kaw mbëggu mbër bi ma ma amatul sonn na. nalaw lay wër. mbër saa yoo seetaanee ñaari mbër tompolo benn mbër mi magam nekk ci benn mbëggu mbër bi ci kaw mi ngi wut oxygène te te Reug Reug compétiteur la xam na athlète moo tax bi mu ko peesee tël ko gis nga da ko wiite rek ànd ak moom léegi fu mu jëm law toll ku ko àppal jum fu ko neex dem yow boo ko doon boo ko boo ko doon jubbanti foo koy awale ko mu laaj nga bañ da nga ba danga nga koo da nga koo ñemewul yi am nañu wax Sa Thiès waaw waaw c'est la ma la waxoon am nañu wax Sa Thiès amateur yi am ñu wax am ñu wax Malick Niang am ñu wax Sik ñu maanaam ku ne wax na am nañu wax forsa yow loolu loo ci xalaat. Euh, Reug Reug embarras du choix la ne ci xelam rek bu la laajee nga bañ danga am looy bañ waaye amul yoon dugg na ci cour des grands est-ce que ñu ngi lay tuddoon ci cour des laaj naa la. Reug Reug mi ngi ci cour des grands. mi ngi mi ngi ci biir ñoom Bombardier mi ngi ci biir ñoom Tapha mi ngi seen biir. kon su ma la déggee moog Tapha Tine wala Bombardier combat la. dama ne ku mu ci laajul sa xel war naa dem ci moom même bu la laajul sa xel war dem ci moom xam nga Reug Reug nu mu tudd léegi. wax ma ko sóoraale. sóoraale. sóoraale. sóoraale. Youssou Ndour da woon na sóoraale. mbër na ko sóor. nga lu am lu so lu am solo. kuy na ko sóor. rek rek mooy sóoraale. kontaan ci yow. ma jërëjëf